sëriñ axmadu mbàkke sëriñ axmadu mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ maam jaara mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1850 jàpp 1851 ci dëkk bu sell bii di mbàkke bawal sëriñ maam moor jaara doomu maam moor sali mbàkke la ak soxna jaaratullaahi mooy taawu kii di soxna jaaratullaahi maam moor jaara mbàkke am na ñu mu bokkal soxna jaaratullaahi ak maam moor anta mbàkke ñu ràññee ci sëriñ tuuba seexul xaddi Xaadim sëriñ Muhammadu Abibullahi bu xuru Mbàkke ak kii di seen jigéen ba soxna Faatu Bintu Mbàkke ñett la bokk bokkal soxna jaaratullahi ak kii di Mamor Anta Sali bi mu ganee àdduna ba matadal lii di alxuraanul karim waajuram wu tedd wa di Mamor Anta Sali Mbàkke nijaayam la ko joxoon muy sëriñ Busoobe Buso sëriñ Busoobe Buso wéyoon na di ko jàngal lii di alxuraanul karim ak xam-xam ginnaaw bi nijaayam sëriñ Busoobe Buso miñ ko joxoon féetale ko ko nag jox na ko ku ñuy wax Mamor Anta Diop ginnaaw sëriñ Mamor Anta Diop mi Mamor Jaara Jaar joxaat nañ di sëriñ tubaa seexul xaddiim di du bamba sàll bu saalum mu jàngal ko lii di xam-xam jaar na itam ci sëriñ ma jaw ndumbe bu kokki mu delsiwaat na ci loxoy nijaayam sëriñ mbusoo be busoo ndax moom la ko juróom wa joxoon di mamor anta sali mbàkke nijaayam moo ko yar di sëriñ mbusoo be busoo taftal ko itam ci boppam ba fa mu jëm yóbbaale ko néew na lool nga daa gis sëriñ mbusoo be busoo te gisoo kii di mamor jaara ci wetam mooy nijaayam Senghor mu wéy ci loxoy sëriñ Mbusoobe Buso ba ci atum 1895 sëriñ Mbusoobe Buso génn laata sëriñ bu soobee Bousso mi nijaayam di génn lii di àdduna itim waajuroom wu tedd wa di Mamor Anta Sali Mbàkke génn na àdduna ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor ñu denc ko ci déqale ci atum 1882 Mamor Jaara dem na jaale ji waajuroom wu tedd wa nekkul woon ci loxoy waajuroom wu tedd wa nijaayam lañ ko féetale woon daa delsiwaat nag ci loxoy nijaayam kii di sëriñ Bousso be Bousso mu wéy di nekk ak nijaayam rakkam ja sëriñ Tuubaa Seexul seexul xaddim taxawal lii di yoonu murit ci atum 1883 mag ñu bari wuy ji li seexul xaddim woote muy yoonu murit booba Mamor Jaara magi mag niñ leen ko waxe mi ngi ci loxoy nijaayam fii ci Mbàkke Bawal ginnaaw bi Sëriñ Tuuba seexul xaddim bàyyi ko na Mbàkke Kajoor ñëw ci dëkk bii di Mbàkke Bawal ngir nag di sanc si dëkk bu sell bii di Daaru Salaam ginnaaw Daaru Salaam Tuuba ginnaaw Tuuba nag def na fi lu tollu juróom ñaari at yu teg ay weer seexul xaddim bàyyi ko xibaari jolof ay weer lañ ci teg nag kii di nijaayam ca sëriñ busoo bi busoo génn lii di àdduna mamoor jaara di magi sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi ñàkk waajur ak lii di nijaay bisub altene fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru tabaski ci atum 1312 ci gàddaay gi mu dëppoog londi 10 juin 1895 sëriñ busoo bi buso dem ginnaaw bu ñu taxawoo sëriñ busoo bi buso ba noppi dafa wéy nekk foofu ci mbàkke xewar foofu la ko sëriñ bu soobe bu sa dëloon rakkam ji sëriñ tuuba seexul xaddiim jaali si woon na seen nijaay ji di sëriñ bu soobe bu soo ginnaaw bi nag delluwaat na mbàkke baari jolof lu tollook ñaari weer rek lañ ca teg yóbbu ko ci gabon gabon googu nag magam ji maam moor jaara magi mag te mu fa woon waaye daana ko nemmee ko bu baax a baax kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim itim daana ko bind ay bataaxal ci réew moomu mu nekk di gabon am na lettre sax bu mu ko bind di ko ca xamal ne ginnaaw nuyoo bu mu ko nuyu moom magi bopp boppam ji laaj ko itam njaboot gi ak réew mi di senegal seexul xaddim ma ngi ko cay xamal ne na mbooloo mépp nekk benn rawatina lii di njabootu Mamor Anta Sali te ñépp nag topp ci ginnaawam def ko lii di kilifa seexul xaddim ma ngi koy wax ca lettre ba di ko ca wax bennoo gum bëgg njaboot gi bennoo ko te njaboot gi itam topp ci ginnaawam lii di xale yi muy ay doomi boppam ku mel ni cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal cheikh mamadul lamin baara mbàkke ak jigéen ñi ñoom itam nañ nekk ci loxoy maam Cerno Ibrahima Fatim mbàkke fu ko soob na fa dëkk ak ñoom rawatina ci dëkk bu sell bii di tuubaa li ko gënal mooy doomu màmmoor anta sali yi bootu ci ginnaawam te nekk benn moom seexul xaddim na fi mu nekk ay xat-xat la te moomul boppam seexul xaddim ma ngay wéy di wax màmmoor jaara ca lettre ba di ko xamal ne moom màmmoor jaara ak i rakkam ak moom sëriñ tuubaa seexul xaddim foofu mu nekk ci gabon nañ xam ne suñ boroom moo nekk fépp suñ boroom mooy sàmm lii di ab jaamam bennoo gi daal moo ko gënal lu mën di am Mamor Jaara di ko xamal ni fii mu nekk itam ci Gabon moom itam ak mbokk rek ak lu ko dundal dong lay sàmm ñu teewlu lettre bi ci seexul xaddim bindoon te yonne woon ko magam ji di Mamor Jaara magi mag ngir doomu Mamor Anta Sali yi nekk benn te topp ci ginnaawam ñu teewlu ko bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi alhafiz alkarim wassalatu wassalaamu ala alshafii alazim sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sawi taslim hada wa innahu min abdillahi taala xadim rasulihi sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibnu muhammad xususan ila aqi aqi shaqiqihi muhammad ibnu muhammad wa ila kaafati al ixwan fi llahi taala umuman mujibuhu an taalama ya axi bi ann hada alkitab katabtuhu fi lbahri wa uusika bi taqwa llahi wa bi iqtifai sunnati nabiyihi walyakun ibrahim wa saydu almuxtar wa gayruhum min al ixwani minka fi amrin waxidin wal tarhamhum wal yubajjiluuka wal yakun al iyaal wan nisaau maa ibrahim fi tuuba in amkan wa illa fa fi ay makaan inshaa allahu wa tayaqanu bi anna allaha maana wallahu taala fi kulli makanin wa huwa xasbuna allahu wa niamal wakilu wassalaam loolu rek day dëggal na kii di Mamor Jaara magi mag ak rakkam jii di Sëriñ Tubaa Seexul Xaddim daanañ bindante ay lettre ci géej gi lettre boobu rek firnde la ci ak yeneeni lettre nag yu mu ko bind ci géej gi Seexul Xaddim des foofu ci Gabon jaar Jaara magi mag des fii ci Mbàkke Bawol ci quartier bii di Mbàkke Xewar ba ni Sëriñ Tubaa Seexul Xaddim ñibbisee ci géej gi diirub nag li Sëriñ nekk ci géej gi saa su ne mi ngi wax njaboot gi rawatina lii di maam Ceerno Ibrahima Faati ak lii di rakki maam Moor Jaara yi di leen xamal ne maam Moor Jaara mooy maam Moor Anta Sali nañ ko fonk te toppatoo ko war ma joojiti maam Moor Jaara delloo woon na ko seexul xaddiim ba tax na itim saa su ne mi ngi koy nemmeeku ci loor nag lañ sax ba ne fi maam Moor Jaara génne lii di àdduna ci atum 1921 waaye maam Moor Jaara itim xam na ne Sëriñ Tuubaa seexul xaddiim may la kon ñaari cër yooyu fu ñu jaar daa ko joxante ba feeñ na lool ci seenu nekkin joxante cër boobu sax taxoon nag sëriñ tuba seexul xaddiim ñaari doomam yi fi magoon cheikh mamadul mustapha mbàkke ak kii di mu mamadul faadal mbàkke bi seenum jàng matee waxoon na ñu jël leen jox leen magam ji mu saytu leen lu mu wax rek ci ñoom ci seenum njàng su boobaa kenn duutu ci teg dara ndax kat maam moor jaara wàllu xam-xam tuutu ci te noonee ko seexul xaddiim waxe woon ni lañ fabi ñaari doom yooyu jébbal leen kii di Mamor Jaara ngir mu saytu seen wàllu grand-mère ba mu leen xoolee xam na ni ñaari doomam yi kat gàcce ngaa laa ma Mamor Jaara itam foboon na lu ëpp ci njabootam wala njabootam gépp itam sax jébbal leen rakkam ji di Serigne Touba Seexul Xaddiim ndax kat xam ne ni Serigne Touba Seexul Xaddiim li mu yor mayuk suñu boroom la moo tax képp ku ñuy wax ibnu mamoor Jaara wala bintu Mamor Jaara Seexul Xaddiim moo ci daa dogal Seexul Xaddiim 11 novembre 1902 maam moor jaara magi mag wéy des mbàkke xewar ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci géej gi ni ko ñépp defee moom defe na ko noonu ñëw ziyaare si rakkam ji sëriñ tubaa seexul xaddim laaj ko coono tukki bi seexul xaddim itim defoon na ko mag balaa def dara itim laaj ko xalaat ñu wéyal ci loolu ginnaaw ñibbisi bi ay weer lañ ca teg kii di demba ngari nekkoon agent secret mbaaxaan gis ay lal yu seexul xaddim yónnee te yut laaju jot mu wuti mbaaxaan di ko xamal ne seexul xaddim moom gis na ko mu yor lii di ay ngànnaay jihaad lay waajaat mbaaxaan itam bi waroon ci yëf ya defu ko mu dëggal rek li ko agent secret bi wax ba yëf yi mujj ëpp loxo tubaab bi dugg ci ñuubuwaat seexul xaddim lii di gànnaar laata seexul xaddim di dem gànnaar nag mbaaxaan daana ko jaabanteloo ngir di ko convoqué lu baree bari ngir seexul xaddim di ko wuy si am na ci boo xam ne ni kii di maam moor jaara magi mag maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ak maam cheikh anta mbakke ñoo ànd ngir wuy ji lii di mbaaxaan keroog maam cheikh anta mbàkke mi ngi xamal kii di mbaaxaan di ko wax ne seexul xaddim de ñëwul waaye ñii kii di maam moor jaara magi mag mooy magam maam ceerno mi mooy léppam te man mii man maay rakkam loo war a wax nag wax ñu ko wax jii ma leen wax nag su ngeen demee ci jasaawu sakóor bu cheikh Moussa Ka danga ko fa fekk mu gën leen a leer seexul xaddim ku fonkoon magam ji di maam moor jaara la ba daana wax mag ñi de képp koo xam ne nii liggéeyal nga maam moor jaara ñetti pay yi danga ko am wala ñeenti pay yi ndax suñ boroom buur bi tabaaraka ko liggéeyal yonent bi sallallahu wasallam dana la fay ndax li nga liggéeyal maam moor jaara man mii di rakkam di seexul xaddiim danaa la fay te maam moor jaara ci boppam dana la fay kon kii di maam moor jaara ku ko liggéeyal danga am ñeenti pay yi te mag ñi xamoon nañ ko noonu te daanañ ko jëfe lu bare bari sëriñ Tuubaa wéy dem gànnaar ba ci atum 1907 mu jóge gànnaar ñëw ci yéen jolof gànnaar googu maam moor jaara daana fa yónnee ay addiya ak lii di nemmeeku rakkam jooju seexul xaddiim itam daana ko fa bind lettre lettre ngir di ko wax itam fu mu toll ginnaaw bu mu nekkee ci réew moomu di gànnaar bindaatoon na ba neen lettre magam ji di maam moor jaara maa ngi koy xamal ca lettre ba ginnaaw bu mu ko nuyoo di ko wax sama doomu ndey ji yow muhammadu jaara ak kii di cheikh ibrahima mu mag ak cheikh ibrahima mu ndaw sëriñ cheikh sidil muxtaar mbàkke di maam cheikh abta ahmadu ak mohammed ak mboolem sama doomu baay yi maa ngi leen di nuyu ak mboolem jullit yi ak taalibe yi ñi xam ne menn cheikh omar mohammed ak ahmed ak kii di cheikh masamba mbàkke caat ma ak sama baay tëx yi itam maa ngi leen di nuyu ñu jigéen ñi itam di samay bàjjan maa ngi leen di nuyu ginnaaw nuyoo boobu seexul xaddim def ci lettre bi te jagleel ko mbokki boppam ak li di taalibe yi ma ngay xamal maam moor jaara ba nëgëni di ko wax ne bennoo gi daal ci njabootu maam moor sali ak lii di mbàkke gi moo ma gënal na ñépp itam rek xam ne fii ma nekk daal ci ay xat laa nekk moomu ma nag sama bopp day tasug mbokk wala lu koy féewale du jóge ci man fii ma nekk nag ay xat-xat rek la na ngeen xam ne nag bi may bind lettre bi maa ngi ci jàmm maa ngi sax di xalwatu jamono ji waaye bennoo gi daal mooy lu ma yitteel su ma sañoon ngeen sax ci fii ma nekk nag maa ngi ci te lu koy dundal dong nag ci laa nekki ñu teewlu lettre bi ci seexul xaddim bindaatoon ba tey di bëgg rek njaboot gi nekk benn te topp ci ginnaaw magam ji di maam moor jaara bismillahi rahmaani rahim ibrahima wa ibrahima alsaxir walmuxtar wa muhammad wa ahmad wa jami awlaadi alwalid rahmatullahi taala alayhi wa ala jamici almuslimina walmuslimat wa cheikh omar wa cheikh mouhamadou wa mouhamadou wa samba wa omar wa jami awlaadi awlaadu rahmatullahi taala alayhi wa ila jami abnai alam wal amma wa ila jami aljirani umuman wa xususan taxiyatan tadcu li katibiha wa lakum maan xayru dunia wal axira wa salaamataha amma baxda fala yakun fi sudurikum xaraju muxrajun min kulli ma sadara min jihati mimma yushbihu su al adab wa qatan rahim rahim wa alamu bi anni ma faaltuhu ala amri waltatub nufusukum maam bi anni fi xalwatin la gayru wa mata uxraj axruj wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw gànnaar ci yéen jolof ci 1907 ba 1912 Mamor Jaara itam dem na fa ñaari yoon ziyaare ji rakkam jii di sëriñ Tuuba Seexul Xaddim ñu man cee ràññee ñeenti yoon ñaar yi kii di Mamor Jaara magi mag moo dem yeneen ñaar yi da ko yónnee taawam ba sëriñ Mor Soxna Mamor Jaara ginnaaw bu sëriñ Tuuba Seexul Xaddim jógee gànnaar ci le 17 septembre 1907 Mamor Jaara demoon na yéen jolof ziyaar ji rakkam ja fukki ñaar la àndaloon 3 novembre la yabal nag doomam ja sëriñ moor soxna ngir mu yitaat seexul xaddim ay addiya boole kook nag di ko nemmeeku waale bu baax a baax 2 mai 1908 Mamor Jaara dem na ñaareelu yoonam ci dëkk boobu di ca yéen jolof nemmeeku ji rek rakkam ji 4 juin 1908 yónni waat na fa taawam ba sëriñ moor soxna mu yitiwaat ay addiya xam ne ne ñoo bokk soxna jaaratullaahi te moo fi magam ginnaaw 1912 sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi ko na ca yéen jolof ñëw nag njaareem mammoor jaara magi ma daana yónnee njaareem ba tey rek ñu koy nemmi kol kam ji seexul xaddim xam na ne mag moom mag la moo tax it joxoon na ndigal mammoor jaara mu moytu di déplacé lu bari mag mag la te ñoo bokk mammoor anta sali te moo ko ca mag ñoo bokk kii di soxna jaaratullaahi itim te moo ko ca mag taxoon na seexul xaddim daa moytu mammoor jaara daa dox lu bari yëkkati ay tànkam ngir di ko seet si mammoor jaara itam xam na ne sëriñ tuba yoo xam ne tooñ rek lañ ko def ba téye ko te munta ñàkk bañ a déplacé wu kon ñaari warma yooyu daan nañ ko joxante warma googu mu amoon ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim amoon ko ci magam jooju di mammoor jaara taxoon na sëriñ tubaa seexul xaddim dajale woon ñenn ci mag ñi di leen wax ñu way magam jooju di mammoor jaara mag ñi moo nekkoon maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ daam ture sëriñ ma yaasin ummi jeng ginnaaw buñ bindee kenn ku ne ñetti way na ngir jagleel ko mammoor jaara magi mag ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bi ñu noppee na sëriñ tubaa seexul xaddim tontu na leen eggale xasida ga di leen ca ñaanaka kañ ñu lu mbind mi maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru defoon ca magam ja maam moor jaara ci ndigulul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ظهير ندى فاد فضائله جم عطاياه بل أغزى من الديام تالله لولاه كنا في سفا جرف هار ولم ينفلت تمز عن الألم الحمد لله في وفق الزمان به وكان زؤده في العرب والعجم sëriñ daam Touré ginnaaw bu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bindee ba noppi moom itam sëriñ daam Touré itam bind na ñetti way itam la jagleel maam Moor Jaara magi mag ñu teewlu ñetti way yi sëriñ daam Touré bind moom itam ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tubaa Seex cheikhul xadim madaxan li seeqin faqihi faifun alamun yuuli nada walhuda walxayri maa niami zaaka almbakiyu alladi ma saala muqtasiyan nahju lmutiicu ufiya rusuli wal umami wawa alladi jawdahu bahrun yamuuju lana nawaalahu saatu faydin jamma kalqiyami ginnaaw sëriñ daam ture ñetti wayam yooyu mu bindoon kii di sëriñ ma yaasin ummi jangite moom itam bind na ñetti wayam ngir tagg Maam Moor Jaara magi mag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xadim yi ñu teewlu ñetti way yi sëriñ ma yaasin ummi jëng bind ginnaaw bu maam ceerno bindee sëriñ daam ture bind ñu teewlu ñetti way yi sëriñ ma yaasin ummi jëng akrim bihi zaydan qad xaaza min sarafin maa yajizu alfikra an amrin wa an kalami in jitahu taaliban jasra alataai tajid kafayhi alwasli fi zakmin wa fi karami man dabuhu xawfu rabbi xaaliqin samadin muhyi layaali tabibil jahli wa faqami ginnaaw ñoom ñett ñooñu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim sàkku woon ci ñu way magam jooju di mammoor jaara magi mag ginnaaw bu kenn ku ne defee ñetti way ngir jagleel ko mammoor jaara magi mag sëriñ tuuba seexul xaddim moom itam bindaatoon na ñetti bayit ngir mottali xasida ga sëriñ tuuba seexul xaddim ma ngi leen di wax ne ginnaaw way yi ngeen way mammoor jaara magi mag yàlla na leen suñ boroom defal ay xéewal yàlla na leen sori ñu teewlu bay di sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bindaatoon ginnaaw bu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bindee sëriñ Daam Ture bind sëriñ ma Yaasin Ummi Jëng bind ñu teew teewlu bay di sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bindoon ngir motti xasida ga jazaakum bi jazaa'il xayri su qidami wa qaadakum li muraadi bari sil qidami wa minhu utlubu fi daarayni jawsakum bi xidbatin yawma jullu naati fi nadami tiibu nufuusan bi haza jazalan yajzikum xayru man yujza sul Jaara mage mag nag sanc na ay dëkki dëkk ñu ràññee ci dëkk bu ñuy wax nji jaali sanc na dëkk bu ñuy wax Madina sanc na dëkk bu ñuy wax Saam sanc na dëkk bu ñuy wax Misra sanc na dëkk bu ñuy wax Mbàkke Xewar mooy fii mu nekk ci Mbàkke Bawal sanc na dëkk bu ñuy wax Tawféex sanc na dëkk bu ñuy wax Ndokk sanc na dëkk bu ñuy wax Bustaan ak yeneen ak yeneeni dëkk yu magu Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bi sanc dëkk yépp itam yar ak jàngale moo taxoon sanc ko ngir santaaneb suñu boroom ak liggéeyam bi rakkam ji woote di yoonu murit wi ay turandoo itam am na ko ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim kii di cheikh mamadul mustapha mbakke tudde na ko doom sëriñ mamor mbàkke ibnu cheikh mamadul mustapha ñu gën koo xam ci sëriñ mbàkke madina mu dul faadal mbàkke tudde na ko doom rakkam yim loon mamor anta sali mbàkke saam yi ñu ngi ci seeni kër te mamor jaara lañ leen maam cheikh mbay bu luga looyitam elaaji sëriñ saam mbay bi ñépp xam ci wàllu conférencier mammoor jaara lañ ko tuddee ba tey ci turandooy moor jaara yi ràññee nañ ci sëriñ mbàkke faal bu maam cheikh ibrahima faal lamp baabul na ak kii di maam moor jaara saar bu sëñ ibrahima saar njaañ seex yi àndoon na ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim te seexul xaddim waxoon na ku liggéeyal mammoor jaara suñ boroom dana la fay yonent bi fay la ma fay la moom mu fay la loola itam waaye itam takku na lool am na ñu ñuy wooye muhammadu ci ay turandoom am na ñu ñuy wooye mammoor am na ñu wooye saam tur wi di mustapha itam am na ay turandoom yuñ koy woowe am na ñu ñuy wooye maddina am na itam ay turandoom yu ñuy wooye sëriñ mbàkke ak yeneen ak yeneeni tur yu ñuy wooye turandooy mammoor jaara yi am na itam ñu mu jàngal ci yoonu murid yar leen boroom xam-xam la woon ñu ràññee ci kii di cheikh mamadul mustapha mbàkke ibnu sëriñ tubaa seexul xaddim cheikh mohamadul faadal mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaddiim rakki boppam yi di maam cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm sëriñ afiya mbàkke ibnu mamor anta sali mbàkke ak ñeneen ak ñeneen ci yoonu murid wi yoonu murid itam ñu takkoo takku martial nañ kii di mamor jaara magi mag ñu ràññee ci doomam ji di cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mohamadul fadal mbàkke mag ñi itam wéy nañ di ko way sëriñ mbàkke buso ak ñeneen ak ñeneen xam nañ ne magu sëriñ tuuba seexul xaddiim bi ay doomu Mamor Anta Sali bi ñu mën cee ràññe sëriñ Mouhamadou Dem bu njaareem sëriñ Mouhamadou Dem bu njaareem nag keroog bi muy way nag doomu Mamor Anta Sali bi kaamilu alxuraan nag la ko booleel nag ak way yi di kaamil nag bu mu bind nag ci loxoy boppam jébbal ko na Mamor Jaara ñu teewlu nag way yi ila xalimin taqiyin aalimin wasarin muhammad najli xibrin zi mansijaati bakam nu balla a abiduhu wahi layaali bi awraadin wa أتيتك اليوم أودي مصحفا لكم فاقبله مني واستغفر صلاتي سيدي الشيخ يا جدي خذ بيدي وحسني way wii ñu leen di dégtal nag na ca mujjantalu xasida ga yaay ahmada xëdbil ko ni mufsidihi alay asna tahiyatin wa zakiyatin waaye yooyu nag la ko sëriñ Mouhamadou Dembu Njaareem defaloon keroog nag bi mu koy jébbal nag kaamilu alxuraan bi Mamor Jaara magi mag mi ngi génn àdduna bisub altene ñaar fukki fan ci weer wi di weeru korité ci atu 1339 ci gàddaay gi altene ñaar fukki fan ci weer wi di weeru korité ci atu 339 ci gàddaay gi dëppoo muy lundi 27 juin 1921 7 juin 1921 ñu yëgal ko rakkam ja sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim booba nag mi ngi ci njaareem ci résidence surveillée Seexul Xaddiim nag moo woolu sëriñ Mbàkke Buso wax na nag na taxawu nag magam jooju te jébbal ko boroomam nag te wetu nijaayam ja nag sëriñ Buso be Buso ginnaaw bu ko sëriñ Mbàkke Buso taxawoo ba noppi defaloon na sax Mamor Jaara am marché bu yaatoo yaatu di jooy nag doomu Mamor Anta Sali Mbàkke bi ginnaaw bu mu ñëwee njaareem nag ba yëgal sëriñ tuba Seexul Xaddiim nag ci ndigal loolu mu ko joxoon sëriñ Tuuba seede bu am solo nag ci ginnaaw magam jooju doomam nag cheikh mamadul faadal mbàkke defal na ko nag am marché bu yaatoo yaatu di jooy nag waajuram woowu soo delloo nag ci marché bi ma mu dul faadal mbàkke defal nag Mamor Jaara ma ngay wax ne ci biir marché ba àdduna moo tëdde noonu wala àdduna ngoogu heure bu la bégalee jooy loola ndax nim lay bégalee ni la lay jooyloo cheikh mamadul faadal mbàkke ba nag ni mu ngi ñuy xamal ne génnuk àdduna ak Mamor bokk na ci mettit yi nga xam ni àdduna teg na ko mbindeef yi mu ne Mamor Jaara nag nekkoon na koo xam ne nii njariñ la woon ci askan wi nekkoon na xéewal ci kaw suuf xéewal googu mu nekkoon ci kaw suuf itam bokk na itam ci ngëneel yi suñ borom wàcce woon ci kaw jaam ñi ñu teewlu marsiya bi Cheikh dul Faadal Mbàkke defoon ci waajuram Mamor Jaara hiya dunya fa in sarratka yawman fa inna alxusna aaqibatu sururi wafaatu cheikhi ahmada jaara amrun azimun min mulimmaati duhuri alaa xad kaana fi l awaa'i ruknan mashiidan bi lataafati walxubuuri wa xad kaana almacdu likulli xatabin jalilin fi qafaa'i aw zuhuuri saqaa muznu rida suqyaa darixan yuwaariihi ala marri duhuuri wa daamat raxmatu lmawla alayhi taqifu biha alaa aw fi suruuri bi xaatimi rusulihi salla alayhi ila alcarsi bil aali lbuduuri ay xalifaam nag nii la tëddee ginnaaw le 27 juin 1921 ba le 31 août 1934 taawam ba di sëriñ moor soxna mooy ki ko wuutu ñaareelu xalifa maam moor jaara mooy ku ñuy wax sëriñ cheikh asta moo ko wuutu ci le 31 mai 1934 ba ci atu 1939 ñetteelu xalifa sëriñ maam moor jaara mooy sëriñ baara xuraja mbàkke moo ko wuutu ci atu ba ci atu waa ñeenteelu xalifa mooy ku ñuy wax sëriñ cheikh atta mbàkke ibnu Mamor Jaara moo toog ci atum 1963 ba ci atum 1982 juróomeelu xalifa mooy ku ñuy wax sëriñ Ismaïla Mbàkke 1982 ba 1992 juróom benneelu xalifa Mamor Jaara mooy ku ñuy wax sëriñ Mahmoud Mbàkke ibnu Mamor Jaara 1992 ba 1999 juróom ñaareelu xalifa Mamor Jaara mooy ku ñuy wax sëriñ maxtaar mbàkke ibnu mammoor jaara 1999 ba 2003 juróom-ñetteelu xalifa mammoor jaara mooy ku ñuy wax sëñ abdu xafoor mbàkke ibnu mammoor jaara l'an 2003 la toog xalifa ba le 27 décembre 2008 doomi mammoor jaara yi jeex tàkk ci kaw suuf ci wàllu góor sët yi tàmbalee wuutu seen maam ja sët bi njëkk wuutu mammoor jaara mooy ku ñuy wax sëriñ mustapha beto mbàkke ibnu sëriñ moor soxna ibnu mammoor jaara mbàkke ci le 27 décembre 2008 ba le 13 janvier 2009 ñaareelu sët bi wuutu maamam di maam jaara mooy ku ñuy wax sëriñ basiiru mbàkke saam ibnu sëriñ moor buso xureja mbàkke ibnu maam moor jaara mbàkke mi ngi toog xalifa le janvier ba le premier sept décembre 2009 ñetteelu sët bi wuutu maamom di mammoor jaara magi mag mooy sëriñ abdullahi mbàkke yàllaay buur ibnu sëriñ moor soxna ibnu mammoor jaara mbàkke moo fi toog premier set septembre 2009 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te yàggal ko ci toogaayu maamam bi ndax kat sag la ci mbàkke xewar ndax liggéey bu am solo xalifa maam moor jaare bii def na ko ginnaaw jumaa ji mbàkke xewar doon safoo defaat na jeneen jumaa joo xam ne nii ay milliards lay laaj yal na ko eggale te teg ci bëtam maam moor jaara magi mag am na bis buñ koy fàttaliku daanañ ko fàttaliku ci ñaar fukki fan ci weeru korite di bis bi mu génnoon lii di àdduna ñetteelu xalifaam bii di sëriñ baara xuraja bi mu toogee xalifa la demoon ci magam ja cheikh mamadul mustapha mbakke di ko laaj ndigal mu roy ko ci bis bi muy fàttaliku màggalug daarul xudóos cheikh mamadul mustapha joxoon na ko ci ndigal ñu ko daa màggal ci ñaar fukki fan ci weeru korite di bis mi maam moor jaara génnoon lii di àdduna wéyal nañ ko ba ni sëriñ tuuba cheikh mohamadul faadal mbàkke tooge xalifa la waxtaan ak njabootug sëriñ baara xuréja di ko wax ni bu sañoon daal ñu jàpp ko ci guddik ñaar fukki fan ak juróom benn di bis bi tombeeg lii di laylatul xadar daanañ ko ci màggal ginnaaw bi ba teyit ci xilaaf ak sëriñ baara xuréja ndax moo sos lii di màggal gi wéyal nañ ko ci bis boobu ba ci atum 1993 tombeeg sëriñ tuuba seex saaliyu mbàkke toog lii di xalifab sëriñ tuuba seexul xaddiim bi fa njaboot gi ñëwee di ko laaj lii di ndigalul bis bi ak di ko yeesalaat leen ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wax ne nañ jël bis bi yóbbu ko ci fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru korite booba ku ñuy wax sëriñ mahmud mbàkke ibnu mammoor jaara moo nekk lii di xilaaf ak mammoor jaara kon 1993 ba nëga ni ñu ngi koy màggal ci fukki fan ak juróom ci weer wi di weeru korite kon lii mooy jaar jaaru màggalug mammoor jaara am na nag yeneen bis yuñ koy fàttaliku ci biir njaboot gi magu sëriñ tubaa seexul xaddiim ba yàlla nañu ko yàlla fayal yokk ay leeram taas ñu ci barkeem bi jaayi rakkam ji xaadim rasuul jafe-jafe yi dal réew mi itam na ko suñ boroom teggi ci dara jay magu xaadim rasuul boobu amiin suul boobu amiin suul boobu amiin suul boobu